nañu dem Jet Café xool ki nga xam ni moom mooy Aliou Chips e en direct nag lii ci wóorul quoi nañ dem Jet Café xool Aliou Chips te daal di ñëwaat léegi ci plateau Dakar ne dort plus ak Aba no stress ayca ñu dem. Aba nuyu nañ la waaw maa ngi nuyu Amina Poté di nuyu Dërëm di nuyu Vessel Bass du ma fàtte ñaatam ba lay fay ah, di nuyu Mia madame Dour du ma la fàtte benn yoon moom mi ma yokk pour ma dugg si Dakar ne dort pas. lay fay ma bàyyi benn yoon Amina sama monteuse boobu Papa Aba tey Aliou Chips ñamal mas si Jet. Z Café bu Nord Foire xale yaa ngi nii di fëlaale di sànniku dara xewut papa Ada ma jéem a saña man nga topp ma ñu xool si loo yaa ngi ci jàmm. maa ngi jàmm bu baax. waaw yaa ngi fii jël café ak Dakar na baax. waaw maa ngi fii tey jël café waaw. waaw dama lay laaj tey lan moo la yëkkati. tey moom dereeta ma yëngal looloo ma yëkkati tey ndax boroom bés bi maa moom ñoo bokk benn baay. ñu koy wooyee alu sips boroom ñamal ma ci. waaw tey loolu moo tax deret ñuul ma moo tax tey ma ñëw fii. maa ngi ci jàmm yaa ngi si jàmm bu baax maa ngi si jàmm bu baax waa tey ma lay laaj si live Alou bi ah tey nag suñu raq moo xewle papa bokk ndey ak baay xale bu yaru ay cër mi ngi nii suba dañuy liggéey moo ñu jaral ñu jaay suñu neew ndax moom <laughs> ça va sëñ bi. waaw maa lay ziar. di la bëggee. fii la dama lay laajte bisu Aliou Sips bi nan nga ko gisee. waaw Aliou Sips xanaa ñu ñëw rek andaale ay pekkati Sips yu bari. dégg nga loolu. ne nag Aliou ndeysaan dafa doon suñu rakk. man tey mu jël bés bi tudde ko. ki koraala mu ñëw ba bari ñu nag. noo gisee bisu Aliou Sips bi. ah bisu Aliou Sips moom defe naa ne indi nañ Sips yëpp. dëgg neexul maa nga see Sips lañ indi. bu jeex ñu bu bu manqué ñu indi. ndax alu day sunu waay dëgg neexul di di ko man lu muy def nag di borom baax bëgguñu lool te yàlla tax. maaleykum jigéen. si loo ne yaa maa ngi sant bu baax. est-ce nañ la def nga. waaw man dama yàgg ci def nag loolu la yàlla def. waaw wane na ko tey jii si bi Aliou Chips bi. waaw gis nga Aliou Chips moom dañoo ñëw pour jàppale ko avant tout maa ngi nuyu waa Mauritanie gi yëpp. di nuyu sama mbokk naar yi sama mbokk tukulóor yi. bii mbii mbii maam yi. salmini moo noonu foofu. maa ngi nuyu nag Abba di la bëggee di la wax nag ñu ngi lay seetaan di la bëggee yow garaaw bu baax nga. bi def. ah soxna si maa ngi nuyu maa ngi lay nuyu di la ziar di la baalu àq. Ah, ñu ngi lay baal ak ñu ngi lay ziar. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu waa TFM di nuyu Aba sama xarit. ñu ngi lay fay bu baax waa bi euh, tey di bisu Aliou Sibsi bi ñamal ma si mu nekk en live euh, fii si Nord Foire ñu lay laaj euh, bis bi noo ko gisee waaye tey dafa mel ni da nga def yëfu ah def nga sa balance si biir daal man dama bëgg guddi xale bi sol balance. non man dama mën a sañse loolu moom Sénégal ñëpp wax nañ ko xam nga plateau bi dafa nekk plateau Dakar ne dort pas dafa nekk plateau bi nga xam ne Aba euh, dafa mën a sañse kon ñi fay génn dañoo war a mën a sañse mais maa ngi lancé appel di wax ne euh, Alou suma xarit la suma doomu ndey la bokk na lu mënta séddoo mu way way bu rëy nag way ma ci bàq ma ci jin ma ci di def sargal Babacar Seck di def anniversaire am invité ma damaa war a ñëw loolu mooy yoon aja merci beaucoup Aliou Soubs maa ngi ñëwaat léegi ak xale bu jongoma boobu nga xam ni moom laa yónni foofu ca Jet Café du ma fa du ma yàgg fenn wax naa la maa ngi ñëwaat léegi mais